lépp li nga xamante ne élection yu ko laal moom personnellement président Macky Sall gagné na ko donc kon fuñ ko jaarale woon 2012 jaarale ko fa si législative yi jaarale ko fa si référendum bi jaarale ko si législative 2017 ak présidentielle 2019 nañ ko fa jaarale en 2022 le 23 janvier donc yaakaar naa ne ni ma gisee nit ñi am nañ si yaakaar lool lool lool lool lool lool kon su ko defee monsieur le ministre d'État ñu gërëm gërëmaat la bu baax sant la gërëm suñu invité yi te ñoom dañu ñëw rek ne dañuy apporter main forte mais tey jii assemblée général bi assemblée générale u APR la moo tax ñoom itam ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant si jàppale bi ak si farlu bi parce que nag bu ñu réere mbir Parcelles Assainies bu ñu réere mbir ñun président Macky Sall ñun suñu parti bii di APR dañu ko fonk danañ ko protéger duñu nangu kenn ku këf suñu mairie bi ëllëg nga yóbbu ko feneen dama bëgg ñu xam ne ñu xam ne le président de la république son excellence Macky Sall mooy suñu njiit nit nag doo ko jiital ba pare di ko fa kastal wante nit itam lu mu doon doon njiit moom sallallahu taala alayhi wa sallam ci mbindeef ah defe naa am na lu ko suñ borom daan wax boo xalaatee waa bokk ko ak ñoom ñi am na sax kenn ci saaba yi bu dara xewaan bu joxee xalaatam moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf koy wax ne lii nga wax sa xalaat la am lu jóge ci yàlla suñ borom tabaaraka wa taala ça veut dire que nit loo doon doon njiit da war di di échanger di diisoo nit dafay diisoo moo tax ñu am sañ-sañu wax suñu gis-gis fii ci Parcelles Assainies une des communes les plus importantes de Dakar les 19 communes communes de de de xam ngeen président Macky Sall moo fi jëlee commune d'arrondissement tout est devenu commune de plein exercice bu ko defee nag ah wax dëgg yàlla sama bopp la ma gënal du bañ naa la bu ñu ko amee moo ñu gënal buñ ko amul moo ñu gënal wante buñ ko amul. président de la république Macky Sall waa parcelle nee nañu nee nañu non seulement Amadou lañ bëgg mais li ñu bëgg moo di gunge la ba faaw gunge la ba faaw nag yàlla yàlla suñu borom tabaraka wa taala may leen ma may leen ma wax ji jeexagul wax ji jeexagul ah wax ji jeexagul dama boo amee doole bu la yàlla jàppale nga liggéey ba doole boobu taxaw samp nekk une réalité objective APR Yakar est une réalité objective la coalition la plus importante que l'Afrique ait connue dans la durée c'est Benno Bokk Yakaar mais c'est dû à la générosité du président Macky mais c'est dû à sa capacité d'écoute de l'ensemble des composantes de Benno Bokk Yaakaar bu ko defee nag dañoo war moment yi bu dellu see te xam ne la vie l'évolution de la vie dans le monde depuis la création de l'humanité est de crises et de dynamisme de stabilité les moments de crise sont souvent les plus importants les plus longs c'est à prévoir et à prendre en charge boo koy jël en charge compter d'abord sur soi-même compter d'abord sur soi-même ensuite sur les siens ensuite sur ce qu'on a mis en place avec de, de force la l'APR Yaakaar Benno Bokk Yaakaar c'est une réalité objective que le président Macky a aidé à installer pour ne pas dire à installer à créer et à nourrir dans l'espace politique sénégalais bu ko defee nag. ministre Amadou Ba ñun ñun suñu liste bii suñu liste bii duñ ko jox koo xamante ne nii bu ko jiitalee bu ko jiitee bu doonee maire ëllëg mun na waraat président de la république Macky Sall. koo xamante ne nii wor nga waraat yaakaar naa ne quatrième fois bi du la jaaxal tubaab daf ne il n'y a mais danañu wax il n'y a trois cent quatre donc loolu ñu xamee ko ma bañ a la parole jox la ministre d'État Mbaye Ndiaye mu yeggali information yi asalaamaaleykum wa rahmatullah Il n'y a pas de contradiction. Mais une fois l'élection gagnée, si ce candidat chanceux gagne au niveau des deux institutions, il a l'obligation dans les 15 jours qui suivent et à, à, à, à défaut de, de, démission, il est démis par la loi, la déchéance le frappe et c'est cela la loi. Donc, il faut que ce soit très clair on n'a pas de problème sur ce plan-là et vous savez que élection yi ñu yu jëm ñetti façon élection la y a l'élection municipale y l'élection municipale de ville et y a l'élection départementale ñetti façon élection moo am c'est pour cela que notre expert électoral Aline Badara Diouf honorable député na nga boole ci li nga laaj ay dossier du rek yéen waru leen nekk rek ay candidat fii ci mairie Parcelles Assainies da ngeen a war a nekk itam élec am candidat ci élection ville de Dakar ah xam ngeen ville de Dakar ñaari pàcc la benn pàcc bi ci élection directe lay jógee beneen bi dafay jóge ci dix-neuf communes d'arrondissement dix communes yi nga xam ne benn bu ci ne dafay yónnee ñi gën a mag ñetti ñetti ñetti conseiller ñi gën a ndaw ñaari conseiller donc am ngeen possibilité ngeen nekk candidat ci liste bi ñu nar a def te ñu ngi koy ñaan président mu dénk ko le ministre Amadou Ba à la ville de Dakar liste boobu itam na ngeen préparé moo tax kenn ku ne nañ defar ñaar ñaari extrait naissance datant de moins de six mois wala benn euh, euh, photocopie légalisée de la carte d'identité CDEAO la carte d'identité CDEAO foofu duñ la laaj carte d'électeur seule la photocopie de la carte d'identité CDEAO suffit elle constitue ci jamono yi ñu toll gis ngeen le BRT le BRT